ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi si seen site internet bi di 24 actu yi ñu deswaat ak yéen ci seen naafilay weeru koor wi tey nag mu nekk guddi ñaar fukkeel gi ak juróom-ñett ñeenti rakaa lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon wattiini juróomi yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna juróomi yoon lexlaas juróomi yoon ñu bamtuwaat ko ñeenti rakaa nag ñaari sërmal lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon wattiini juróomi yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna juróomi yoon lixlaas juróomi yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan bila adadi